Mhm. sant it Serigne Khadim mhm. Samb waaw Serigne Khadim Samb maa ngi koy ziar bu baax di ko sant mhm. nekk fii ci euh, ay lina Fall moom a njëkk a jox koy teere ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ak mbooleem ku nuy jàpp waay borom Thiès solidarité bëgg naa ngeen ñaanal ko baax ku baax la jàmbaar la seen ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax yàlla xam na ni bi may jox teere ma ko ak ak jotaayit may jàng dafa dox ci marché ba yàgg dégg sama son. Mhm. may jàng jaalibatul maraaxib. Mhm. muy dox ba yàgg moom ma koy nettal de. Mhm. di dox ba yàgg di déglu déglu son bi daal di daal di jékki-jékki taxaw. taxaw taxaw ba yàgg xam naa di jooy. ndeysaan ka ko teg mu ne ko waaye ku jàng lii boobu xawma ku jàng lii. mun ko kii day Ahmadou Gueye lañ koy wax mhm. man Fall dëkk moo ko jànk mhm. mu ne ko la kii sëñ bi fexe ba ma xamante ak moom maanaam yëkkati xaalis bu bari jox ko kooku àjjee maanaam kateg kateg yi jox ko jox ko xaalis bu bari daan ni ko daan ni ko kii dimbali ma ma ma ma jot ci fekk moom mhm. am na group bu ñu bokk boo xamante ni turandoo sëñ Tuubaa yi euh, euh, ñoo ci nekk maa ngi moom bokk na groupe waaye taxul ñu xamante waaye bi bi bi ko kooku joxe sama numéro whatsapp bi génn mu ne waaye man kii xam naa ko sax. wallaahi kii bokk groupe. ci la ma wooyee ma ñëw ba këram. Mhm. mu jox ma puce yu jees neer. jox ma xaalis bu bari teg ci kayit terrain. macha allah loolu nag ak baax la. tey ko wax wàññiwut dara. macha allah yal na ko yàlla gën a kàttan. mboolem ñiy def lu baax. waaw ndax ñoom yi danoo war di danoo war di leen sant bu baax sonn ma koy. ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax kàddu yi gudd na. jërëjëf waaye dañuy sant sant nañ bu baax baax a baax baax. Euh, wax Thiès solidarité ah. moom jàmbaar la dafa mën a def lu baax yaakaar ah. naa mook suñu kilifa gi nga xam ne moom mooy NJ ah, noonu la bëggee NJ bëgg kër gi wax dëgg yàlla noonu noonu la mel sax yaakaar naa chaque chaque année su euh, pan matériel bi dem euh, euh, Touba yëpp moom moo koy jël wax dëgg yàlla yóbbu ko li nga xamante ne nii moom mooy Touba jàmbaar la waaye nag ah Serigne teytu terrain yi xaarim Samb maag Serigne. Oh, waaw dëgg yi. xaarim damay luwee maa ngi ni damay luwee aw ma kër su ma fayul dañ may génne dimbali ma rek waaw kon ah ñu xam ni eh, noonu la demee sant nañ bu baax a baax <laughs> li nga xamee ne moom mooy <laughs> Serigne Touba suñu yaay soxna Ndeye. ndax waxtu bi dañoo tàncit. ndeysaan guddal rek. Mhm. waaw kon bàyyi nag seen xaarim Samb. ah waaw. te ndaw la gudd la. Ah, waaw. lu ca waaye daj ca moom rek jàpp ni yow rek la. terrain bi wax ko. <laughs> dina la ko jox. waxtaan na ci ak man. dina ma ko jox. leen jox yéen ñëpp kooku dafa baax. Ah. waaw kooku bu mayee teere dafay maye te sëñ tubaab. wallaay ma njëkk a ma njëkk a di ngeen yàlla ku baax la damaa njaboot Serigne njabootagul. waaw gis nga <laughs> dina ko def ku baax la. turandoo Serigne Touba la. dëgg la Serigne moom it ñu koy sant bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw a la. Mm-hmm. ci jànkatu xasaay bi. waaw mais wax dëgg yàlla taraanga bu ne seq na ko man. kon maa ngi ñaan Serigne Touba lii mu yoon mu aw sunu borom defal ko ci taw tawféex. alhamdulilah te lu mu bëgg koo def it yàlla dëgëral ko. ci barke Seexul Xadim. amiin amiin amiin kon ñoo ngi sant ma mhm. meññ. Mhm. doon baax sama yaay. maa mhm. ngi koy ñaanal gudd fan ko ànd ak wér. amiin bu baax a baax. yaa Abike. maa koy ñaanal gudd fan ko ànd